di ñëwaat ak yéen ci seen émission la religion et société émission bi nga xam ne day woo lépp loo xam ne diine la te mooy defar doomu aadama euh, doomu aadama bi bu fexee ba defaru te mooy topp diineem rek àddunaam dana defaru kon loolu moo tax a jóg émission bi ndax diine bu baaxee rek société baax tey nag ñu fas yéene fàttali wante incha allah ci loo xam ne njëriñ la ci ñu ñëpp muy loo xam ne wàll julli la ak jeexintal yi nga xam ne war na koo mën a def ci doomu aadama ak itam jeexital yooyu résultat yooyu nga xam ne day jóge ci julli naka la ko doomu aadama bi war a yëgee ak kañ la koy am comme ni ngeen ko gisee julli. alquran bari na lu muy wax julli aqimu salaa aqimu salaa rek lay wax saa bu ko tuddee rek aqimu salaa lay wax waaye du wax mukk sallu maanaam daf naan julli leen julli gu baax waaye du wax julli leen kon loolu am na lu mu bëgg a junj mooy julli goo xam ne baaxul kon taxul ñuy wax ah, julli nag dafa am loo xam ne da koy def ci doomu aadama ci leer goo xam ne day leeral xolom ba leer googu mën na dem ba reflété ci xar kanamam mm, loolu mooy leeru julli su demee jullit bi ba egg foofu nag ba am leer googu su boobaa maanaam dootu mën a defati naka sudul noonu kon benn ci résultat julli yi day feeñ foofu na inna salaata tanhi anil fahshaai wal munkar julli day tere lu bon waaye day digle lu baax euh, la koy maye nag mooy nga xam naka ngay julle balaa ngay julli nga xam attey làpp booy jàpp ban ndox nga war a jàppee ak ban ndox nga warul jàppee ndax ndox dafa bari ay façon ndox boo xam ne dafa laab te mën a laabal comme niñ koy jàngee ci fiq bi mooy balaa ngay jàpp ndox moomu nga war a jàppee boo waree sangu farata ndox moomu nga war a sangoo farata te mooy ndox moo xam ne couleur bi changé wul cafka bi changé wul xeet gi changé wul maanaam source ba mu jógee nam mel noonu la mel nam jógee ca teen ba wala nam jógee ca forage bi wala nam jógee ca robine ba noonu la mel amul soppeeku bu ci am Ah, waaye ndox mi nga xam ne am na lu ko soppi donte la ko soppi lu laab la ndox mi nga xam ne soow da cee tuur wala diwlin tuuri ci wala loo xam ne daal moom ndox bokku ñu te bu duggee ci ndox mën naa soppi benn ci ñetti melokaan yi muy xet gi walla cafka bi walla couleur bi loola bu amee ndox mooma donte laab na mën nañ koo jëfandikoo ci lu dul jàpp lu dul sangu farata lu dul raxas sobe waaye kenn du ko jëfandikoo ci ñett yooyu ci leneen lañ koy jëfandikoo ni ki togg wala yu mel noonu waaye kenn du ko def jëfandikoo ci jaamu yàlla te jaamu yàlla buñ ko waxee mooy jàpp sangu farata ak dind sobe kon war nga xam ban ndox ngay jàppee avant ngay julli ndax boo jullee te jàppoo amoo julli waaye boo jàppee ci ndox moo xam ne ndox ma baaxul munta jàpp tamit boo jullee amoo julli kon war nga xam ndox moomu ban ndox nga war a jàppee ndox mi nag moo xam la ko soppi daf koo fekk si wala mom mo fekk ci ku fekk ci ci ñom ñaar rek ndox ma baaxatul niki non bu ko sobe soppee su boba ndox mi sobe du ko jëfëndiko ci jaamu yalla ak luddul jaamu yalla tour rek la ci sharia àtte su boba kon lolu lu mata bayyi xel la ci euh, ndox ban ndox lañ wara jëfëndiko ak ban ndox lañ warul euh légui nak bu loola amé lab gi bu amé te tamen nga xam lan moy toj njàpp yi nga xam ne day toj njàpp xam naa yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci ay jotaay incha allah ak yi nga xam ne mooy waral sangu farata mooy waral nit ki war a sangu set ak xam naka lañuy ñuy war a sangoo set yooyu yëpp jullit farata la ci moom ñu mu xam ko boo ko xamul ba génn àdduna yàlla dala koy laaj loolu kon jar na bàyyi xel lool lool ci bépp jullit képp ko xam ne yaa ngi yow jullit jar na nga bàyyi xel sew sew yooyule ci wàllu jaamu yàlla détails yépp nga war a xam hakaza comme ni nga xamee ne suñu wàll àdduna niñ koy toppatooy ba bépp détail ñu xam ko ci euh, nu ñuy amee xaalis ñu xam ko nu ñuy lijjantee xaalis nu ñuy lijjantee suñuy mbiri bopp loola nag la ca gën a yell mooy ñu góor góorlu ba xam naka la ñuy jaamoo yàlla naka la ñuy waajalee suñu jaamu yàlla ndax kat julli boo koy def yaa ngi jàkkaarlook sa borom yaa ngi waxtaan ak moom Eh, boko gisé ak mom sa borom ak boko gisul eh, wa motax euh yonent sallallahu alayhi wasallam doon wax ci walu rafetal mune boy jaamu yalla na melni ne yang koy gis yaa jakar lo bu fekke muno lolou nga bàyyi xel ne mom mi ngi lay gis mi ngi lay deg ba julli ga jeex ak bepp ak bepp jaamu yalla boy def wa jaamu yalla yi bi ci gëna mag moy julli ndax nit ki bu génné aduna lañ koy njëkk laaj ci bàmmeelam gannaaw bañ ko laajee kan mooy sa boroom kan mooy sa yonent lan mooy sa téere noo defoon ak moom alquran euh, gannaaw bañ ko laajee yooyu ba pare julli lañ koy laaj julli ga bu baaxee rek kenn du xoolati beneen jëf boo def donte say njuumte bari na waaye say julli baaxoon na kenn du xoolati dara yëpp lañuy jàllale waaye bu fekkee julli gi baaxul wala am na bari na ay manquement yu ci am ta munuñ ko complété ci say nafila say julli farata baaxul te daawoo nafila ndax julli farata yi bu baxé mën nañ ko complété nafila yi waye bu féké julli farata yi baxul ba pare nafila yi baxul su boba aussi kenn ken kenn ken duko complété su boba sa yenen jëf yi lo mën di def ci lu bax ken duko xolat kon mbokk yi nañ bàyyi xel julli bu bax ndax moy mooy ruuxul ibaada mooy ruuxu jaamu yàlla jaamu yàlla bu doon am ruux di julli moy ruham jaamu yalla bo man di def te say julli baxul jaamu yalla boobu du dem fenn koku lu mata baye xel la kon euh, nañ ci baye xel bu baax kon nak julli gogu nga xamne mom la yonte bi sallallahu alayhi wasallam santane te don ci ñaaxi nga xamne ba muy genn aduna la mujjé wax ba kaddo mo nan as-salah wa ma malakat aymanukum as-salah wa ma malakat aymanukum as-salah wa ma malakat aymanukum salah wa ma malakat aymanukum salah wa ma malakat aymanukum ba kenn déggatul kàddoom maa ngi leen di julli ak seen moomeeluk ndeyjoor maa ngi leen di dénki julli ak seen moomeeluk ndeyjoor moomeeluk ndeyjoor mooy sa jaam bu jigéen bi nga xam ne moom nga am sharia daganal daganal la ko ngir ngay euh, séq ak moom comme ni ngay séqee ak sa soxna loolu la doon wax ah, lam si jublu rek mooy jigéen ju leen dagan taqu leen julli ak jigéen ju leen dagan parce que kon loolu lu mat a bàyyi xel la nit ki noonu euh, comme niñ koy faralee di wax euh, nit dana sonn ci lu ne ci àddunaam ndax ku nekk rek la la yitteel mooy nga réussir sa dund waaye réussite boobu du mën du mën a am mukk surtout ki nga xam ne dafa opte pour nekk jullit ne jullit la danañ koy faral di wax boo demee ba ne jullit laa nekk ci lislaam tënku nga amatoo liberté def lu la neex amatoo liberté wax lu la neex amoto liberté dem fu la neex ndax bo nangul l'islam teunk la tamit da nga dem lenen teunk la lo xamne do ci man dara waaw kon teunku nga euh, li la teunk moy règlement yi nga xamne mom la yalla tek yonent bi salaa alayhi wasallam leral ko sahaba yi jangal ñuko ko xam-xam yi gën ko faram kon koku lu mata baye xel la kon da nga gis euh, nit di sonu ci lu ne nga xamne réussite waaye résit boobu du mënta am du mën a am rawatina ci ab jullit lu dul mu toppatoo julli di ko teewlu di ko julli ci waxtu ya euh, nañ koy waajalee mu xam ko di ko waajal di ko teg ci yoon buy julli tamit mu teeylu julli ga bañ a këpp këppal ndax këpp këppal baaxul ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit dana julli ba pare ñu yëkkati julli gi fëgg ko ko ne ko soxla sa julli gi yaa nañ ci yàlla musal mooy ki nga xam ne day julli rek pour génn ci man daal bu ma ko bàyyee ba heure sàngam fay gi daf may sonal dajale ay julli di fay daal noppalewul kon naa ko julli rek génn ci benn yoon kooku baaxul bu fekkee ci këpp-këppal nga ko nar a teg naa ko julli rek génn ci baaxul da nga koo war a julli ngir ne danga nga koo war a julli ngir jaamu yàlla ngir bëgg ànd ci ak bëgg ak cofeel ndax lépp nit ki lépp lu muy def te bëgg ko waaye da koy def malgré rek su boba du ci am réussite donte sax ci mbiru aduna rawti na julli ga nga xam ne gëna mag bari na ko xamne day am ay problème day am ay galankor lum songu du ko daan lum commencé du ko mëna a euh nan man dama umok wala euh, sama non yi ñomay def nangam dañ ma liggéey ak chat moma ma ak lu ne fekk dara topuko lako top rek moy ñak selal ay jaamu yàllam ñàkk sellal ay jaamu yàlla ndax nit ñi yàlla bokkuñ ñi leen bindee ki nga xam ne yàlla daf ko bind nga xam ne moom léppam leer la moom euh, wërsëgam kon ci jaamu yàlla la nekk ndax leer yooyu ci jaamu yàlla rek nga ko mën a amee ndax mooy dundal ruux am na koo xam ne aussi euh, maanaam kooku ma tudd nag moom bu jàddee yoon rek da koy gis loolu day impact ci wërsëgu àddunaam buy def ay moy yàlla wala muy def ay bàkkaar kooku day téye wërsëgam lu lum naroon am du ko am wala bu ko amee tamit du ko jëriñoo du barkeel wala ci ay problème lay dëkk kooku nag li koy dimbale mooy muy góor góorlu ci jaamu yàllaam te yàlla rek tax di teew teewlu ay julleem di ko julli ci waxtu di def lu baax kooku wërsëgam day dem am na koo xam ne nag xëy na yàlla moo ko bindee noonu aussi moom ay mooy yàlla yooyu noonu da koy yomb wala sax xëy na yooyu donte yomb ko sax mais moom bu koy def du impact ci wërsëgam wala yu mel noonu façon nit boobu tamit am na ah, waaye nag bi njëkk a wax mooy euh, ki nga xam ne moom la yàlla gën a xéewale ka keneen ki waaw ndax ki nga xam ne bu jàddee rek xam ne euh, maanaam bu jàddee rek yàlla wan ko ko ci sens yi fii ci àdduna ak ki nga xam ne euh, ay jàddi jàddam ak ay rëcc rëccam yàlla day bàyyi ba mu dee mu soog ko koo wan kon ki nga xam ne da ko koy wan fii mu xam avertissé ko fi mu téla xam di top yàlla koku mo ëpp chance kon koku lu mata bàyyi xel la ñi ëpp ci nit ñi nak non lañ mel waaw motax yàlla di wax ci alquran ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kep ko xamne ragal na yàlla yàlla dana la defal solution ci mboolem lo dugg lo song rek dan ko nee dal di lay wërsëgal sax lo xamne ne woko won lu kawe sa njort waaye ragal yàlla googu nag du mën a am lu dul say julli nga di ko teg ci yoon bañ koo gaawal rawatina rukkoo ya ak sujoot ya julli taxawaay yi mën na bañ a yàgg waaye rukkoo dafa war a yàgg sujoot dafa war a yàgg gis nañ ci xadis ñu ne yonent bi salaa salaam nee na boo sa bàkkaar day mel ni day wadd donte doo ko gis euh, day wadd di jógee ci sa ginnaaw di wadd sa xuru ginnaaw gi di wadd loo gën a yàgg ci rukkoo ba rek say bàkkaar di gën a dem boo sujootee tamit parey bàkkaar yi day wadd loo gën a yàgg ci sujoot ba bàkkaar yi di gën a dañ moo tax ñuy bëgg ku yàgg ci sujoot ak euh, ak ruko ruko lu mu néew néew na man ñetti sàbbaal ñetti tasbiix subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi lu néew néew na man ñett ñett yu teey bu bëree eh, bu bëri man nga ko def sax ba juróom amna ñu koy def ba ba fukk ça dépend ci degré eh, eh, manam gëm yalla ki koy def julli nak mbokk yi kon boko doxale non ruko ya yag yàgg sujoodee ya di yag te ruko ak sujootit diggante ruko bi nga taxaw tem bala ngay sujooti nga soog a sujoot boo sujootee tamit diggante ñaar sujoot yi nga tok ndax boo rukkooyee taxawoo rek jaar noonu dem sujooti bàyyi nga farata sa julli baaxul niki noonu tamit boo sujootee rek euh, daal di yëkkati sa jë rek sa gàtt bàyyi nga farata sa bu boobaa sa julli baaxul muy naafila muy farata nag su boobaa julli ga wérul hakaza kon kooku mat na bàyyi xel lool di teylu julli ndax mës nañ ko fay waxtaane bokk na seytaane fi muy jaar doomu aadama ngir yàqal ko mooy bu demee ba mënu koo tere jaamu yàlla day fere day fexe la muy jaamu yàlla du am benn qualité day fexe ngay def quantité boo xam ne du am qualité ah, mooy euh, ji julli julli goo xam ne danga koy gaawal day fexe nga yàkkamti ba def ko génn ci kooku ci pexe seytaane la képp koo xam ne yaa ngi foofu rek xamal na seytaane not na la léegi nag bu fekkee nag naagu na ci lool nag ci lay soog a dem ci jéem euh, di fexe nga koy def di ci ngistal wala nga koy def di ci yëg sa bopp wala yu mel noonu ba pexeem ya jeex ci julli nag lay gën a concentré wu ngir yàqal nit ki kon boo ko defee ni ko war a defee tey tamit teew la ga ci la bàyyi xel julli gi ndax yéen bi salaa salaam na wax naan julli gu nekk na ko julli mel ni mooy sa julli gu mujj waaw julli gooy julli gu nekk jàppal ne beneen julli du ma fekk ndax wóoru la xamoo ndax boy julli tisbaar xamone takusan dana la fekkam det kon boy julli tisbaar na nga baye xel ne kon takusan man na ma fi fekk kon julli gi moy sama muju julli te ben julli buñ nangu rek dugal na nit aljanna kon dana def la tout pour julli gi ñu nangu ko boo defee noonu def ko takusan def ko timis def ko ge def ko julli suba julli yeb nga def ko ah kon koku yalla mën na la dimbalé nga am garantie chaque julli nga def ko parce que woru la nak waaw doomu aadama daraam wóoru ko yére bi nga sol sax wóoru ndax yaa koy summil sa bopp wala dañ la koy summil kon kooku lu mat a bàyyi xel la rawatina ci jaamu yàlla yi kon daal julli kon mu ngi noonu jar na bàyyi xel julli nag bu baaxee su boobaa mboolem jaamu yàlla yépp yàlla daf la ciy sawarloo sa xol day leer ba yàlla daf lay sawarloo ci lu baax rekk la lay xiir dooto mën a def bàkkaar Eh, doto ko sax da nga dem nit dana dem sax bo doto khalat bakar dana dem ci martaba bo xamne doto khalat doto manate sax khalat bakar ba diko ko def waaw ah, nak nag martaba bu kawe la bo xamne nit man nako amé ci julli kon koku ñu bay ci xel bu baax baax ta ñi ngi koy amé ci toroxlu ci julli wacce suñu bop baña bay sétane muy fo ci suñu xol ci suñu xol ngir ñu mëna am lèr yay juggé ci julli nga xamne day feeñ ci suñu mbiru àdduna sonn gi ñu sonn ci àdduna ci mbir yu ne mbir mu ne ñu sonn ci jox ko yitte bañ ko war a jox buñ ko sonnoon ci jaamu yàlla rek lépp ñuy fekk si waaw lépp ñuy fekk si donte nit ki donte mu ngi jaamu yàlla dafa war a sabablu waaye bu boobaa bu sababloo lu mu am ci sabablu ba day barkeel ndax barke jaamu yàlla gi mooy ñëw foofu waaye bu fekkee danga nga bëgg euh, toppatoo sa àdduna rek jaamu yàlla nga càmmooñu ko wala nga teg ko de côté ah su boba do dem do dem wala loo fi man di amit du barkel kon koku man na baye xel day delu ci la suñ borom waxon ci hadithul qudsi ba rek ne yow dom aadama bi nga am sa namel ma am man namel waaye na xamal ne lima bëgg rek moy am bu tombeek li nga bëgg baxna bu tombe ak li nga bëgg baxna ci leral leeral ah, léegi nak bu fekke dang fi baye lima bëgg di def li nga bëgg dama lay sétane rek ngay sonn di sonn di sonn ba ci cëppaandaw ga doo ci am dara ma def li ma bëgg fekk yow sonn nga sonn euh, sonal naa la ba pare te doo la am li nga bëgg kon loolu kay li gën a noppale mooy nga jébbal yàlla sa bopp rek tey sabablu jébbal yàlla sa bopp ne ko ah yàlla man de yow yaa ñu sabablu danaa jéem lu ma mën nag waaye lépp ci yow lay dellu lu am yow la lu am yaa ko dogal delloo lépp ci yàlla moo tax nitu yàlla yi daanañ egg foo xam ne daanañ ci egg foo xam ne maanaam seen iraada sax iraada yépp dañ koy bàyyi yàlla dañuy nettali ñu ne nitu yàlla ba feebaree ba ñu yóbbu ko euh, ca réewu tubaab yi mu nekk hôpital mu nga nekk ci yoon ngir euh, euh, nga xam ne li ko dese bariwul ñu laaj ko ne ko sëñ bi góor gi loo bëgg mu ne laa uriidu an uriida man bëggumaa bëgg la yàlla bëgg rek laa bëgg waaye man bëgguma namm dara lu dul yàlla namm hakaza kon kooku lu mat a lu mat a bàyyi xel la yàlla lim bëgg rek mooy am kon nañ ko bàyyee suñ bopp bàyyee ko suñ bopp nag mooy def lim wax bàyyi lim tere euh, jaamu yàlla yi ñu def ko nim ko santaane suñ kem tolluwaay kàttan donte moom moo mooy xam li muy nangu ak lim dul nangu ndax moom rek mooy boroom sañ-sañ bu ko neexoon nga jaamu yàlla sonn ci bay waaj a mu dugal la ba ba dee mu dugal la safara yoram nekku ci mën nga tamit eh, yàlla eh, ki nga xam ne yàlla daf ko nattoo jaamuwul yàlla mu dem ba dee mu dugal ko aljanna comme ni ko yoon sallallahu alayhi wasallam waxee ci xadis bu leen jàpp ne man ak yéen jàpp leen man ak yéen ñoo ci yem amul kenn koo xam ne ay jëfam ñoo koy dugal aljanna wala ay jëfam ñoo koy dugal safara yërmande yàlla mooy dugal nit ma yërmande yàlla mooy dugal nit safara waaw kon koku ku ci baye xel ku nek do jaamu yalla ngir duggu aljana do jaamu yalla ngir duggu safara waye da ngay jaamu yalla ngir daf la bind ngir nga jaam ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yalla bindul moone binduma nit ak jinna ludul ñu jaamuma jaamu yalla motax yalla binduñu kon bok nañ ci sax mu ci saxé suñ lepp bax allah ndax ci jaamu yalla ci ngay dem ba lo ñaanati mu nangu lo ñaanati rek mu nangu naan diiw dafa am ijaba dafa am ijaba fekk jaamu yàlla ya moo ko ko may ndax boo bëree lee loo jaamu yàlla rek loolu day yokk sa gëm yàlla ndax gëm yàlla yasiidu bi ziyaadatil amal wa yanqusu bi naqsiha comme ni ñu ko jàngee ci risaala nee na ci euh, gëm yàlla ci jëf yu dolleeku yi ci lay yokkoo waaye tamit jëf yi bu néewee rek sa gëm yàlla day wàññeeku gëm gëm yàlla nag day wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku dem ba xol ba gëm yàlla sax dootu ci nekkati far maasallaa yàlla ñu ci yàlla musal mën na tamit di yokk di yokk di yokk di yokk ba nga xam ne nit ki maanaam léppam yàlla lay doon déggam yàlla lay doon gisam yàlla lay doon léppam yàlla lay doon kon kooku yàlla nañu ko yàlla may euh, nit ki noonu tamit kon ijaabu boobu ñuy wax ci euh, ci ragal yàlla nit dana ko ci amee ndax nit ki sa gëm yàlla euh, gëm yàlla ak ragal yàlla ñoo war a ànd boo gëmee yàlla te ragaloo ko kooku amul sens kon kooku lu mat a bàyyi xel la Euh, ñu doo ñu indi woon kon thème boobu ngir fàttali wante ak yéen ci julli njëriñ yi nga xam ne am na ko nga xam ne day yokk wërsëg day barkeel ay yëngu-yëngu àdduna waaye nag bu baaxee te jaar yoon ni ki noonu tamit dalay xiirtal ci ngay yokk say jaamu yàlla te jaamu yàlla boo defeti bu buñ nangoo julli ga danañ ko nangu kon yàlla nañu yàlla may julli yuñ nangu